jaajëf sama gaay sama abonné yi nga xamante ni ñu ngi may suivre depuis ba ñu commencé si waar bi ba léegi nag ñuy bàyyi xel ak ñi nga xamante ni ñu ngi doog a si chaîne bi maa ngi leen di siyaar ñu mën ngeen abonné te boo leen abonné ba pare bu leen fàtte pour seen cloche notification bu vidéo buñ dugal ngeen mën ko am gars yi tey dañuy ñëw wax si ñaar mooy ci mbirum sëñ Modou Lo Ngabou Junior ak ci xale boobu nga xamante ni nee nañ Fatou Ndiaye Fouta Tampi moo ko jur dañuy njëkk ci mbiru sëriñ Modou Lo Ngaabu euh, Junior defe naa ne yéen ñëpp gis ngeen xew-xew bi mu nekk loo xam ne nag wax dëgg fa yàlla ci wàllum xawum sutura ci senegal moom euh, commencé wul ci moom yamul ci moom waaye bii nag dafa nekk loo xam ne xëy na bett nañ ñu bëri ak jëmm ji di sëriñ Modou Lo Ngaabu Junior nga xamante ni. ci lu baax rek lañ ko xamee ba fi may waxee yow nii tamit ci lu baax rek laay mën a wax ndax ñun jaam ñi di dox rawatina man mii defe naa ni li ma suñu borom di nëbbal su ma ko muriloon rek kenn du ma nawloo waaye nag moom bokk na ci ñi nga xaman ni ndaw ñi dañ ko doon bàyyi xel ci li mu doon jàngale ci téere yi sëñ beeg ak li mu doon digle ci lu baax ñu xëy xëy gis yu mel nii mu dal ko nattu lañ ko mën a wax ak pexem seytaane ndax defe naa ni yéen ñëpp seetaan ngeen vidéo bi gis ngeen tamit ñi waxoon ay taalibem lañ dem ba ci këram di ko filmer ba ndaw si nga xamante ni sax moom moo war a lépp osé di taxaw di wax naan waaw man dañ ma jur fi ma war a juree dama euh, si bu baax laa bokk expliqué sama jëkkër mun noom fase man defe naa ni yow ndaw si waroo woon a am sax maanaam bu dee yëfi gor mu ngi woon ci yow waroo woon a toog foofu sax ndax mbir moo xam ne yàgg naa am mosoo koo wax nga def say pexe ba jël ay audio vidéo envoyé ko keneen sa moroomu jigéen ba ko ko jël vidéo yi di ko ci chantage yaakaar naa ni yow wuro wax lenn ndax déjà lépp yow la donte nag kenn du rafetlu li am ndax soxna si jàmbur moom maandu la wax waane li ngeen doon sekk yéen ñaar ak di ko def yéen ñaar la woon kenn fekkewul te defe naa ni nu mu amee si yu mel noonu dal leen rawatina sëñ bi noonu la amee ci yeneen kër yi xëy na dafa feeñ la rek defe naa ne nag bëri na ci taalibeem yoo xam ne xaddi nañ muy ñooñu ko doon filmer am na ñoo xam ne tey lañ ko gën a gëm mais man dafa dëgg fa yàlla ay waxam ba tey euh, dama koy bàyyi xel ci njàngale mi muy njàngale ak di ñaax ndax bu ñu xool rek li mu def nii nañu xool ci li mu defar ndax am na jëmm yoo xamante ni sànku woon nañ teg na leen ci yoon ñi doon def conférence de presse ba am na si ñoo xam ne ñëw nañ di ko yàq am na si ñoo xam ne ñëw nañ di ko seedeel ni xaalis bi ñu ko doon jox ay daara la si doon rek ak cant la ndax defar na ay euh, nit yi nit ñoo xamante ni tey jii nii bëggoon nañoo xam euh, maanaam ci xam wala jàng alxuraan beneen bi si nag mooy xëy na. ñenn ñi lañ ko xaw a mere mooy li doon ñoddi di ko woote muy euh, wàllum mm, maanaam daal di gëmal nit ñi chaque chaque chaque jour li bi wax li yàlla wax xam nga di ko dundale fu nekk ngir jaam ñi mën a dellu si seen dellu si suñu borom ngir mën ko tuubal far li bett ñu ak moom yaakaar naa ni yàlla suñu borom defar na ay wàllu yu ko gën a kawe fuuf te teg na leen natt boo xamante ni. natt boobu moo tax seytaanu mën leen kon nag dañ ko delloo ci foofu yëpp donte moom tuub na xam na ni def na erreur kon ci jéggal lañ ko mën def ndax moo waxaat ko rek nit ñi ñëpp di wax kenn ku si nekk bu ñu la génnelee si li nga def nga xeeb sa bopp mais nag ñun Sénégal yi dañoo tàmm bu mbir amee danañ ko jël di ko waxee nu ne di ko defee nu ne te ñu ñu ngeeg suñu ayib yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla moo gën a pire fuuf yàlla na ko suñu taxaw nit ki bu dee da ngay woote ku war a xam sa bopp nga war nga mën a maytu jigéen ñi war nga mën a maytu xaalis ndax yaakaar naa ni ñi jëm si yoonu yàlla seytaane daf leen yab lool soo mënul euh, maanaam li ñuy wax maîtriser sa bopp wala di moytu rek dina la gañe loolu nag bokk na si li dal sëñ Modou Lo Ngabou mii di wax ni daal ña ko gëmoon te doo bëgg doon ay taalibe nañ ko gëm te xam ne li njuumte la ndax yàgg nañoo moom mosuñu koo gis si moom ñi ko toppe woon nag ngir intérêt mooy ñi nga xamante ni tey xëy na toog nañ wili pande ko topp seen mer waaye ak nuñ ko mënoon def mënoon nañ ko suturaal bañ ko filmer ndax filmer ngeen ko jël ay vidéo am tasaare ko jël tasaare ko te dikku leen leen yéen ci amaat problème ndax bu defee demee ci yoon it ndax yéen yéen a tasaare moom que mu sekkal la sekkaloon jël vidéo tasaare kon mu demee si yoon ñooñ ñooy am yéen yéen am problème defe naa ne daal rawatina ñun ay murid lan ay weerante warul mën a xaj ci yoon wi donte nag kenn du rafetlu acte bi ndax jabaru jàmbur moom bàyyi fa la wante nag njuum njuum la moom moo feeñ la rek mais am na lu nëbbu lu gën loo xamante ni moo gën a gën a li nga xam ne moom la def ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla suturaal moom sunu borom taxawoo ko bu baax a baax na yaakaar naa ne yoon moom nekkoon moom teggiwu ko ndax ci alxuraan lañ ko xamee xasida Sëriñ Tuubaa tuubaay wante tamit diina ji daal nañ koy woyofal mu ne woyofal nag mooy yenn ñi incarné des fois incarné yoo xamante ni wax dëgg yàlla yu mel nii bu amee rek ñu bëri dañ lay delluwaat ne akoon ah kii li mu ñu doon wankat mooy loolu ndekete alors que def kon ni ñuy dundee mbir mi daal des fois nañ ciy sóoraale lu lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñu jàll ci euh, deuxième bi muy wàllum doomu Fouta euh, Fatou Mata Fouta Fatou Ndiaye Fouta Tampi muy doomam jooju ñu gis nga xamante ni man dama gis Tunkara invité ko man awma ab jur sa di seetaan ay Tunkara damay li si man mais dama gis benn extrait mu dugal ko di laaj xale bi sa yaay lii muy expliquer maanaam lu mu jote ak yaayam pour man moom Tounkara bu fekkoon dafa jël intention pour jàppale xale bi du ko exposer si média yi ndax lépp adversaire politique képp ko waral ndax Tounkara du moom moo war lijjanti xale bu xale doomi Fatou Ndiaye Fouta Tampi pour maanaam muy dem ci ay télé di toog di wax di expliquer yow yaa yaayam la amul problème mais am na yoo xamante ni jur sët di fësal parce que boo ko fësalee ngir jël intention pour ñu détruire euh, Fouta euh, Fouta Ndiaye xaw ma nan Fouta Ndeye Ndiaye Fouta Tampi amul benn benn solo amul benn solo àdduna il faut que ñuy tanante il faut que ñuy tanante te lii dafa ñaaw te man benn benn côté Walfadjri man dama leen di condamné quoi ni mu leen di condamné mooy yéen ak seen maturité ab xale bu ñëwee am na yoo xamante ne c'est pas la peine sax di ko invité moo tax ma ne si Lamine Niass de na ma yàlla baal mais su ko fekkoon fii nii nii nii lu mel nii dina ko métti lool ndax xale boo xamante ne yow ay atam sax xamoo nu mu toll nga teg ko si plateau di ko poser ay question te lañ koy poser boo xoolee ba si biir lépp politique la su ma nee politique la parce que ñem joteel muy côté yaayam ak ak tunkar yëpp adversaire politique moo tax kii Macky Sall kii Sonko tax jël revanche yow ngay jël doomam di ko exposer loolu man yaakaar naa ni ak tooñ mënu koo weesu te defe naa ni système politique bi gars yi jël war nañ koo mën a weesu yàqante amul benn sens ku nekk mën nga politiquer sa leader ba yàlla def mu jël ndam moo gën ay nekk fii di yàqante yi ay mbooti jàmbur amul benn sens futa nday njaay futa tàmbi ba muy taxaw fii di wax Sonko lu ñaaw kenn rafetul amul kenn ku koy rafetlu Tounkara moom bi muy taxaw fii di xas di wax lu ko neex amul kenn ku koy rafetlu léegi c'est quoi ce de politique xale bi xale bu ndaw la yaakaar naa ni war nañ ko mën a dem lijjantee lu ne mu taxaw fii di wax ay yoo xamante ne naka su dul noonu ak lu ko yaayam mën a def mënoon nañ ko gérer na tout ñu jël que teg ko ci plateau muy wax parce que intention bi ci gars yi jublu mooy pour détruire yaayam ndax yaayam moo fi nekkoon di saaga Ousmane sunko ndax commentaire lu si ëpp lu lañ wax ñu naan voilà sa yaay lii ak lii gars yi bu dul dara nañuy dawal yërmande te xam ni des fois sax si kër yi wu wujj dinañ jotee waaye ñaari doomi sax du tax ñuy weerante kon it tunkara yow yaa jotee ak yaayam yéen ñaar la quoi mais bu si dugal doomam ba koy jël live muy dem ci ay télé nañ lépp si même branche bi la rek pour détruire ko ndax ay adversaire politique rek gars yi loolu laa indi woon aca yéen tamit seen commentaire ngeen joxe seen xalaat ci ñaari euh, mbir yi nga xam ne indi naa ko muy mbiru sëñ Modou Lo Ngaabu euh, mi nga xamante ni euh, ab nattu dal na ko comme ni muy dalee ñëpp seen xalaat ak mbirum euh, doomi fu ndey futa euh, ndey njaay fuuta tamp yi ñi nga xam ñi ngi dugg dugg ci chaîne bi na leen te boo leen abonné ba pare bu leen fàttee ba seen cloche notification ba vidéo bu ñu dugal ngeen mun ko am